baadiru gaawantu leen bi la amal ci jëf ju baax xiraman ak màggat naaxisan guy aji nëxal aw mawtan wala ak faatu xaalisan guy aji fëkke aw maradon wala tawat xaabisan guy aji téye aw taswifan wala ak négligé mu ayisan guy aji naaguloo xadis bi di xadis fukkeel bi sëriñ bi indi na ko it ñeen fukki xadis yi mu dajale woon te tudde woon ko nafa isu durar fi kalimaati xayril bashar xadis bu am solo la abu umama moo nettali jële ci ku baax ci sallallahu alayhi wa sallam mu na ngeen gaawantu ci jëf ju baax balaa kenn ci di leen dal ndax bu leen dalee day jëf ju baax da leen di jafe lool ba njëkk mooy ak màggat goo xam ne day xaw a yàq sa xel sax màggan moom lu ci ëpp doomu aadama bu ko defee lu bari du ko mënati jaamu yàlla lu baree baree bari da koy tële du ko mënati mu ne nag na ngeen gaawantu kon ci jëf ju baax jamono yi ngeen nekkee ci ak wér balaa màggat googu di ñëw mu it na ngeen gaawantu ci jëf ju baax balaa faatoo ñëw faatu te ñàkk faaw mu ñëw te mën na laa bett lool te boo xasee faatu moom say jëf dakk jeex na doo mën a jëfati kon nag jamono yi nga xam yéen a ngi dund rek ci ngeen di bàyyi xel bu baax a baax faatu di jéem jëf lu baax balaa faatu ñoo ngir njëkkanteeg faatu ba ca topp mooy tawat doomu aadama moom ak wér mënta sax faaw rek dana ñëw te xamut sax kañ la woy dal te bu tawatee xam nga ne lu baree baree bari ci jaamu yàlla jëf ju baax dalay jafe loolu doo ko mënati kon jamono yi nga xam ne yéen a ngi ci ak wér ci ngeen di gaawantu ci di jëm di jëf lu baax balaa tawat a ñëw loolu tax bu la yàlla tegee tawat mënatoo jëf ju baax dañ lay gàntal nga xam ne tiyaaba lañ lay bindal maanaam loo daa loo daa def ci ak wér soo demee ba tawat tee la koo def dañ la koy bindal tiyaaba ba mujj nag mooy ak miig liise goo xam ne day dem ba yàgg def ci yow ak naagu akuk deng-deng ci jëf ju baax maanaam miig mooy loo a def rek ci lu baax di ko xaare ëllëg naa bàyyi ba nangam naa bàyyi ba ngam doo ko def doo ko def mu teew loolu moom day dem ba yàgg seytaane fàtte loola loola lu baax la def ci ak deng-deng nga xam ne sa dund gépp mën nga mën nga mën nga mën nga caa bañ a def lu baax la kon xadis bi xadis bu am solo la ndax yonante bi yi mu lim yëpp te ñàkk faw mu ñëw te benn bu ci ne bu dalee doomu aadama bi rek jëf ju baax ja du ko mënatee la ca baax nag mooy kon mu njëkkanteeg moom balaa loolu loolaa ñëw jéem a def lu baax bu ko loolu dalee nag ñu koo ko gàntal mën koo bindal tiyaaba ba tey ndax li ko waxee loo daa def ba nga amee wér loo mënoon a def rek di ko def boo demee ba mënatoo ko dañ la ko bindal tiyaaba waaye nag li xaw a doy waar mooy daa mel ni moom seytaane day gañe foofu doomu aadama lool ndax bu dee ak màggat moom day def ci xelam rek ne ko màggatagoo léegi nekk bu nekkee ci ak ndaw du xalaat màggat mukk te la muy def ci xelam mooy jaamu yàlla moom bala maa nekk bala bala naa bàyyi ba nekk mag rek door koo def soo ko defee nag bu dee ba nekk mag cër yi day bàyyi mu tàyyeel lool dara du ko mën a ci jam jëf ju baax baa jaamu yàlla yàlla dimbaliwut ba tey it adduna moom li fekk mi fi adduna buy dund it bu xalaat jóge fi faatu gi moom day jàpp ne moom fi gaaw a jóge mukk loolu lay def seen xelam su ko defee loolu lay wax rek naa bàyyi rek ba ba ba ba nekk mag door a door tuub door a door fekk nag moo xamul sax kañ lay faatu baa sax loolu bu koy nigee bu dee ba nekk mag day fekk ab xolom taq lool tilim lool ñàkk leer ba jëf ju baax du ko jëf ndax jëf moom jëf ju baax ab xol moo koy def xol bu leer waaw damay bu nekkee ci ak wérit tawat du ko du ko bàyyi xel day jàpp na du ko dal mukk jamono bu ne rek suñu borom mën na koo teg tewat te bu ko tegee tewat jëf ju baax du ko du ko mënati su fekkee nag moom ba mu nekkee ci ak wér jëfatul lu baax moom baa moom daal day waar wax dëgg bëgg kon boo nekkee ci ak wér balaa tawata ñëw rek fekk nag nga nekkoon ci jëf ju baax ndax mu ko mujjule nag mooy négligé négligé moom lu doy waar la ndax ñu sax waxoon na ne moom di ko def di négligé ay jaamu yàlla daa bokk ci màndargam texee di ndax niñ ko waxee léegi day mujj rek seytaane fàtte loola jëf ja doo ko def mukk daanaka